أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وحريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذرون واختاني فبنت بأخار له الله ما اختار له في القصص لعلهم يتفكرون ما كان عاجزا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت عجرته إلى الله ورسوله فعجرته إلى الله ورسوله ومن كانت عجرته للدنيا يشيبه أو امرئ ينفعه فعجرته إلى ما هاجر إليه Sëriñ Tuubaa waxi Sëriñ Tuubaa ci yéene dama xam ne dama yaakaar ne bu fekkee ne dañ ko inspiré xam day guddal kii bi rek te daanaka am na ci nag yoo xam ay xista yoo xam ne du jar leeral moom ndax bu ci wax olof yi xóot ak ci jublu gi leer comme ñun ñëpp olof la ñuy xam naa bu jar daal hmm. mu ne waxi sëriñ ci yéene am na ko mas a laaj sëriñ bi ne ko ñun murit yi lan moo nu wutale ak wàllu yi sëriñ bi yónni ko mu daal di dem daal di ñëw sëriñ bi laaj ko loo ci fas da ngay dem mu ne ko dara sëriñ bi ne ko loolu moo leen wutale ne na kon jëf gi ñuy jëf li ñuy liggéey sëñ bi liggéey sëñ Tuubaa daa am doole lool te ñun mu yomb ñu lool ba bu ñu koy def duñ ci fas dara ñàkk gi ci ñàkk fas dara nag daan ñuy xañat tuyaaba ju bëree bëri ba nga xam ne daa mel ne ci la ñu wàll yu ëpp doole mel ne kon ku doon liggéey sëñ Tuubaa boo ci fasee fas yéene liggéey sëñ Tuubaa ngir yàlla wala nga fas ca la nga bëgg yaay ëpp doole wàll yi waxi sëriñ bi ci julli am na def sëriñ bi di julli taw bi soog wax ne di julli muy taw metti na waaye nekk ci biir bàmmeel muy tàkk moo ko gën a metti wér na hmm. loolu daanaka kon amul leeral sëriñ bi mas nay julli gi am sàq muy tàkk am ñu ko bëgg a fay mu ne bu ko kenn fay ne ñëpp dem julli ji bañ jullee ba ñëw fekk dara desu fa wér na wér na gi liñ ci julli mooy ki nga ko tuxale wér na fàtte naa ko leer sax ni muy demee noonu waaye kon xamul ñu hmm. sëriñ bi mas nay defarlu aw sàkket ba waxtu wa tàddee gaa yi nekk ca bañu julli bi ba sëriñ bi ñëwee ni leen firi leen mbooleem li ngeen fi sàkkat bañ ma dég léegi wér na lool waaye loolu nekk leen ni am na weneen wute am na wute bu am waaye xam naa ne sëñ Saaliw moom nett na ko nett goo xam ne xam naa na ko nettalee moom mooy mooy nekk liñ wa dëgg moom mooy mooy nam ko foogam li ko doon sàkk mi doon tàkk itam ci waxtu timis ne na li ñoo xam ne ci waxtu timis nekku ci téere bi waaye yoo xam ne waxtu timis la boo xam ne dañoo nodd ba nopp rek am néeg bu jàpp ci kër ga di tàkk ñëpp di daw di ko kar di ko di ko kii di ko fay sëñ leen di leen dàq di leen kar ne leen kenn laal néeg bi na ngeen dem ci jàkk ja ñeneen tubaab yi dañ ko gisee dañ ko reetaan naan ko dafa afale a jëm ne ci néeg bi la jëm <laughs> waaw nga xam ne daw gi yaakaar ne moom loolu di jubloom li mu mooy fay néeg ba ñu gisee nag mu wan néeg bi ginnaaw muy tàkk mu jëm ci jàkk bi nag xool ni ko daa afale fa mu jëm jëmu fa man na daal maam ci buñ buñ jullee bu sonni itam mën na gis ngeen ndaw la luñ ci yebal rek la maam ñu waroon a lakk buñ fi nekkoon da ko fay ba bàyyi jullit di téye dana ko lakk muy néeg bi moom faaw mu lakk ko ba mu jeex nga xam ne buñ fi nekkoon ba faat jullit néeg bi moom dana jeex ndax loolu la ko yàlla santoon mu jeexal ko nga xam ne loolu mooy tawhid bi dëgg-dëgg sëriñ bi mas koy bayal tool yi dugub ba waxtu julli jot kenn bàyyiwul ba mu ñëwee laat fu ngeen tolloon di waxtu bi biñ biñ wax bi nga xam ne waxtu jot na ñu wan ko ko mën leen dagg leen ko lii nag niróo na ak li ma nettali léegi xëy na muy ñaari xew-xew wér na lool waxi sëriñ bi ci wéetoo suñu borom am na bi sëriñ bi dégg ku naa bu lëg lekkee aloom na ko sant coy sëriñ bi ne loolu wax ju yàqu la ndax coy lëg taxu ko woon a ki mu war a sant kañ mooy kërëccal alom ba ba mu jot ca wér na am na ku mos ñëw ci sëriñ bi am ku mu àndal bi nuyoo ba noppi ne sëriñ bi kii sama jaam la dama koo indi woon di la ko jox xaddiya sëriñ bi ne bërit di julli rakkaa yu gudd ba noppee na ko loo wax mu ne ko kii sama jaam la dama ko indi woon di la ko jox hadiya sëriñ bi ne ko boo ko moomee yaamu moom wér na am na taalibi bu mag bu doon xëccoog bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko mu diibal diibal xanaa mooy bañ a bàyyi ba far nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw sëriñ bi ab yoor yoor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko ci lan nga ne ko suuf soosu nangu naa ko sëriñ bi ne ko baa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk boroom de ñoo bokk borom de am na ku ma nettali ne sëriñ bi dane ko inna al arda lillahi kooku ne ko yurisuhu man yasau min ibadihi sëriñ bi ne ko wal aqibatu lil muttaqin siuna sëriñ Mahamadul Moustapha ak sëriñ Fadlu mas nañoo ñëw ñëw ci sëriñ bi di ko laaj lu dig taalibe ak fu yàlla nekk sëriñ bi nee na sëriñ bi ne leen laaj leen ko Ibra Fall nee leen ak taalibe laaj leen ko Ibra Fall am maa fu yàlla nekk laaj leen ko Moxtaar jóob nii fekk ma nga fa woon sëriñ Moxtaar Diop ne leen man de yàlla xaw ma ci moom dara waaye xam naa ne moom nii fu mu nekk yàlla nga fa sëriñ bi ne ko loolu yi nga tontu taxoo bi nga taxoon man moo la ko may waaye du sam xel wër na man nag ñett li bi defe na maa wóor jar naa wóor lu waat subaa yi mas nañoo wax sëriñ bi dañu bëggoon nga wan ñu yàlla ji ngay jaamu mu ne leen waaw dana leen tubaab bi dañ ne ko dañoo bëggoon nga wan ñu yàlla di ngay jaamu ñu jaamu ko mu ne leen dibéer jooju ngeen di màggal dama bëggoon ngeen jàpp ci noppam bi andil ma muy bisu dimanche ñu jaamu waxi sëriñ bi ci digal yi ak tere yi sëriñ tuba nee na àjjana joo xam ne lu la neex wax lu la neex def amuma jooju àjjana ku ko dégg seen nag bu yeboo dem fa am na bis ñuy nodd am jigéen guy wax ak sëriñ bi <coughs> waaye tontuwu ko ba nodd ko daanoo sëriñ bi ne ko wax ci nodd baaxut mu ne ko teewoon nga wax ma ko ma noppi sëriñ bi ne ko kon ma wax sëriñ bi nee na bis sëriñ Mbàkke Buso jullit bu boolee juróom-ñeent yii mucc ci àdduna ak alaxira ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mu ko def lu mu mën mu maandu ci wér na sëriñ Xiisa Jeen nee na am na bés sëriñ bi ne leen mbaa du ngeen yàq dugub ñu ne ko fas ñu ko yéene mu ne leen ndax xam ngeen luy yàq dugub am ku ne ko xanaa mooy togg lu ëpp ba noppi di ko tuur mu ne ko nuru na ko waaye du moom yàq dugub mooy lekk ba suur doo def lu neex suñu borom bam rek sëriñ Insa Diagne nee na dafa am bis sëriñ bi ne ko Insa mbaa du ngeen jëw mu ne ko fas nu ko yéene de sëriñ bi ne ma ana nu ngeen koy defee mu ne ko xanaa fuñ to fuñ nekk di sa baax gi rek mu ne ma kon de du ngeen jëw daal du koy daal du koy wax ñu ne ñetti yoon sëriñ bi bu mu jugee Jolof jëm njaareem daa am ku leen romb di laaj taalibe yi ndax amul ku ngeen fi romb ndax amul ku leen fi romb am ko ne ko mooy ku gàtt kooku te ñuul sëriñ bi ne leen ñii ngeen di yàq seen bokkum jullit daa di wax ko ko wax ne ko demal ba gis ko jéggalu ko lu ko may bu ma fekk si fii ma nekk wér na lool sëriñ bi mas may dugg mas may dox guddi ba yem ci ñuy jëw ba mu xëyee gas lu fañ toogoon suuf sa féete kaw féete biir daal di digle ñu jàng fa kaami lu bari sëriñ bi nee na taalibe yi koo ci digal dara bu génnee naa mën lëm te boo ko bàyyeeg malaaka wenn waxtu muy ñaax mbaam am na saalum saalum boo xam ne daa mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko ña nga ma booleeloon ñëpp digal naa leen jaamu sama borom waaye defuñu ko faay may xalaat dem wacc <laughs> faay may xalaat dem wacc leen sa wala ma génne leen sëriñ bi ne ko boo demee nga digal leen jaamu sunu borom buñ ko defee nga ànd ñoom bu ëllëgee nga mucc ñu mucc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 bunti àjjana juróom-ñett la xarafi shahru ramadan juróom-ñett la ku koy wor nag sunu borom dana la dugal àjjana daa ji ne bunti sawara juróom-ñaar la arafi alquran juróom-ñaar la moom it ku koy jàng sunu borom dana la tëjal bunti sawara yépp daa ji ne na ngeen ci farlu ci weer wii sëriñ bi nee ne juróom yi buñ xam seen juróom yii seeni waajur buñ xam seenu naqari deret seenu njaboot buñ xam seenu nay waxtuy jullu waxtuy juróom bu ñu xam seen yitte seeni bi liggéeyukaay bu ñu xam seenu tàyyeel seeni dëkkandoo bu ñu xam seeni ñaawi la mas naa am ay gan yu ñëw ci sëriñ bi muy wax ak ñoom di leen ne leen na ngeen man gan te bu leen tëlee dëkkandoo ñu ne ko fas nañu ko yéene sëriñ bi ne leen ndax xam ngeen lan mooy man gan ñu wax ko lañu ñu xam sëriñ bi ne leen nuru na ko waaye du moom gan mooy guddi ak bëccëg man gan ci ñoom nag mooy fexe ba ba doo def ci ñoom lu lay rusloo fa sunu borom ñu waxaat leen xam ngeen lan mooy tële dëkkandoo ñu wax ko la ñu xam mu ne leen ñuru na ko waaye du moom dëkkandoo mooy raqib ak atib man dëkkandoo ci ñoom mooy fexe ba duñ la bindal dara lu lay rusloo ëllëg sëriñ bi nee na am xëy bu rafetu dañoo war a fas jom ci ngont ma daa dina am xëy nag mooy ak ndaw li ci ëpp du rafet ngir gëstu ndaw yi xam ngont nag mooy juróom fukki at jëm kaw wér na sëriñ bi mas naa laajte lan mooy bitim réew ñu ne ko xanaa mooy réew mu dul sam réew mu ne déedéet ndax àdduna ku fi nekk yaa ngi bitim réew bitim réew nag ku ci nekk dangay am fulla ju day ne loo am yoon sam réew loolu ku ko bàyyiwul boo demee ba dem sam réew boo yurul dara itam loolee nga daal yónnee danañ danañ la ca teral waaye boo dul yónnee dara boo demee doo fa fekk dara am na bis weeru koor feeñ sëriñ bi wax ne ku mën a boole liggéey bi ak koor gi def ko ku ko mënul nga bàyyi liggéey bi te woor am ku ne ko man bi mënumaa woor sëriñ bi ne ko lu tax mënoo woor mu ne ko awma lu ma doge awma lu ma xëdde sëriñ bi ne ko ma yaakaar ne lu am fulla ngay wax sa moromum nit rek boo ko liggéeyalee ba ngoon jot mu jox la mu jox la loo lekk sàkkaa sa borom sëriñ bi mas naa yor bant bu def poson teg baaraamu dëyam ak sànnikaay ba ca set la ne bu leen xeet dara ci lu bon ak lum tuuti tuuti ba toll nii lu baax it noonu daal di waxaat ne fi mu ne lii bu àndoon ak li mu war a àndal feeg ngoon lu tool noonu la fi mën a yàq ñu ne ko mën na fee yàq lu bari mu ne lu bon it noonu la mel loolu mooy gàttalu waxtaan yi <coughs> sëriñ bi mas naa julli it ba sëlmal di xool ba yem ci ay sàng ci armeelu njaarim yi mu ne ku moom taax yee ñu ne ko ay xërlu la mu ne déedéet taax yee laa wax ñu ne ko ay xërlu la mu ne bu mu ci fanaan sunu borom bëggul kuy foofu sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaaralahu mas nañu koy laaj ndigal ci yeesal barabu maam Mor Anta Sali bi nanguwul daal di ne loolu lépp du ko jariñ dara la ma ko fa defal moo koy jariñ te def naa ko fa ba noppi sëriñ bi nee na am na ñoo xam ne ëllëg du ma leen gis ndax dañ nekkoon dama caa nekkutoon sëriñ bi nee na mësumaa def luy rusloo sama taalibe waaye bëgguma sama taalibe di def lu may rusloo sëriñ bi nee na yowmal xiyaamati yàlla da dafay rus wala nga ànd faa ku yàlla rus wala yàlla rus ne ni ngay def ba yàlla rus la yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb sëriñ bi mas naa dégg am tëgg ci boori sàmm bi ca njaareem mu laaj lool lu mu ñu ne ko dañuy nàmm mu ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara sëriñ bi nee na ngeen sàkkoo am fa sunu borom la nga xam ne du ko jox ab yaafar du ko jox ab saay-saay te mooy ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na sunu borom damaa woote loo woote naa ku ma wuy si wàcc nga maa ci def sunu borom damaa woote woote naa ku ma wuy wàcc naa yaa ci def sëriñ bi nee na bi mu xoolee sama digg sama boroom ñim jege tan xam ne mun mënut a fexe ba yàq ko leneen laa ko ñaawal ni mu koy ñaawale nag mooy kum gis meloo na nga war a mel mënu la demal nga tuddoo kële sëriñ bi mas naa tombal sëriñ Mbàkke Buso ñetti tomb ne ko Mbàkke yaa ngi nii yaay tomb bi ci digg bi lii la sunu borom digal mooy tomb bi ci sa kanam lim la tere mooy tomb bi ci sa gannaaw daa dina ko saa soo jugee jëm ci li la sunu borom digal mboolem la ngay bëgg di ko wut danaa la jurumaa xool ñoo bokk fuñ jëm ba tey mboolem li ngay daw danaa la jurumaa geesu bokkuñ fuñ jëm waaye safaan bay noonu rek la demee sëriñ bi nee na wàcc leen tëdd bi bisa ngi ñëw kum neex tëdd kum neexul tëdd daa di bind ñett dara ne yàlla nii ku xam ci moom dara doo ko moy ci dara àdduna mii ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi def allaaxira mii ku xam ci moom dara doo ko jëfal dara ba yéen ko ndax dara du fa doy sëriñ bi nee na sàcc ku koy def da ngay gàtt fan ñàkk barke loo dee dem sa wara am na ñu ne ku koy sàcc moom ci boppam la wax sëriñ bi nee na ku bëgg a wéy yóbbaale la nga yor te boo eggee fekk fa la nga bëgg da ngay folli sa nopp te fol bët <coughs> sëriñ bi nee na dee leen mooy waxe bakkan ku waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen fiiwoo te fiiwoo li na xaj na ko sëriñ bi nee na dee leen mooy gis seen bopp ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane wambat la te ku seytaane wambat safan ba loola jëne sëriñ bi nee na dee leen mooy fital tey jaay ci ngir ma ndax kuy fital ku ne fuy fii lay mujj ngay mujj sëriñ bi nee na mënum lëm mu ne boo yëree lëm ma doo ko gis lenn sëriñ bi nee na ku xatt ba mel na gaynde wéet ba mel na gaynde sëriñ bi nee na góor ngeen góorgóorlu ci ndigal ku ndigal tax a naaje boo jugee danga nga deme sëriñ bi nee na jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ ba am la bëgg sëriñ bi nee na na ngeen góorgóorlu ci ak jub ku ci dëng ñu demiir lu la boo toppee ak jub ñu fat la ndax duñ ànd ak ku yàqu sëriñ bi nee na na góor góorlu ci jub ndaw lu ci jubati xaar ma ci sa jiba loo soxla fekk ko ca am na ku ma sa ñëw ci sëriñ bi ne ko damaa ragal ñett mu ne ko ku ragal ñett dangay def ñett bismillah mu ne ko damaa ragal wéetaay mu ne ko deel jàng alquran mu ne ko damaa ragal ak ñàkk mu ne ko loo am dee ko bokk nit ñi mu ne ko dama ragal gàtt fan mu ne ko deel moyoo tooñ sunu borom ak sa morom sëñ bi nee na dee leen wut bayra ndax léeg waaye jóge fi ba noppi mel ne defar ga daa def ngir ñàkk xam wër na sëriñ bi ne na ku xam ci yàlla dara doo ko moy ci dara ku xam ci àdduna dara doo ko fàggul dara ku xam ci ëllëg dara doo ko xeebal dara waxi sëriñ bi ci dëddu ak wéruk adduna ak warak àdduna sëriñ bi mas naa wax ku ñuy wax gàlla sëy ca jolof ne ko nit juróom ñaar yii la muy alal yaram ay yax jëf ruub mooy juróom yi la mu ne bu faatoo nag sunu boroom day jël alal ja jox ña koy dond ne bu leen ko ci sant maa leen ko jox yaram ba mu jox ko sax yi yax ya mu jox ko suuf si daal di jël ruu gi ak ji sëriñ Balla bu sa dafa mas a ànd ak sëriñ Balla Coro ñëw ci sëriñ bi doon ko tàggu si jëm ci xew fekkoon ñu waaj ba jekk sëriñ bi ne leen da ngeen may niru ñu waaj ñu ne ko daa am xew wuñ jëm sëriñ bi ne leen mbaa waaju leen wàccaay mboq ñu daal di sëgg netteel mën leen mboq kat li wàccaay lii di bari bari fa muy mujj mooy futti benn ginnaaw benn ba jeex ñu lakk ba mu ñor tàllal leen ma ñaanal leen sëriñ Basiiru nee na dafa am gis ñu indil ma ak col gu rafet gu jóge Maroc muy xaftaan ak forog ma sol lépp xëy si ci sëriñ bi fekk ko muy jàng alquran ba ma ko nuyoo mu ne gees ñama basiru ana gaalu géeru goo wàcce daal di teg kaamil ba jug wàcc ma fa jug wàcc ma fa ma toog di xalaat lu tax sëriñ bi wax ma lii mu ma wax ba yàgg ma yaakaar ne day mbubb mi ma sol ma daal di koy summi tàmbali di for bant yi di ci def ak taq-taq yi si tuut mu génn muuñ but ci ma daal di ne nga xam sama doom damaa yaakaar ne addunaa koy bëgg waaye du bëgg adduna wér na lool sëriñ bi nee na nit ku ne ñaari biir la am biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam yàllaa ko ko gàddul biiru bàmmeelam nag lu mu fa defut du ko fa fekk sëriñ bi laax laax bu ñu liggéey ndoxum jar mu am cofaayu Dakar daana ko jëfandikoo wér na lool sëriñ Modou Awa la mas naa toog ci sëriñ Touba te fekk maa Abdouloo ñëw fa sëriñ bi wax mbooloo ma fa nekkoon may leen ko ba mu noppi sëriñ moo di nee na ma bëgg a jug mu ne ma toogal daal ne ko nuyul kii doomi Cerno la ba ma nuyoo yi di wax ay soxlaam waaye la mu wax dara antuwu ci ba muy dem sëriñ bi wax sëriñ moo di ne ko ŋàbbal ko bagaas yi ba fa muy duggee daal di koy jox ak junni ne ko bu duggee nga jox ko ko muy payooram ba ko koy ba mu ko gungee ba muy dugg mu jox ko junni ba mu ne ko jëru ko ndax fu ma jëm daa am kayit wu may yor ba duma fay mu daal di del si sëriñ bi laaj ko nu mu def mu ne ko junni bi nee na du ko jël ndax duñ ko laaj payoor sëriñ bi ne ko kayit woowu tubaab yi ñoo koy jox ñi leen liggéeyal bañ gërëm leen ne ko taxoon ma la doon nuyoo léeg moom dama bo damaa bokkoon dama bëggoon mu xam ne la mu bëggoon dara amuti ndax maag sa dañoo àndoon di taxawal lislaam moom mu taxawoon temb ci màbb ko loolu antuwul ba nga judd yow mii ba toll nii dafa am dafa mas am ku ñëw ci sëriñ bi ànd ak keneen ne ko kii damaa jaay ak kër ma la koy wax fi sëriñ bi muuñ ne ko daaran ishtaraha mayitun min mayitin daal di wax bay bii لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار غدا رضوان خاسنها والجار أحمد والرحمن ما فيها قصورها ذهب والمسك عذرتها وشحفران عفيس نابت فيها فرنا أنكم na ku mas a ñëw ci sëriñ bi am ku mu لعبه mboolem mbër yi nekk fii daan ma bëggoon nga ñaanal ko booba sëriñ bi dafa toog dafa toogoon waaye dafa jug di dem ba àgg ci buntu kër gu mag ga gi ci njaareem daal di koy joxañ armeel yi ne ko ana noo def ak mbër mi daaneel ñu tudd fee mhm. sëriñ bi nee na àdduna jërul alaaxira tàyyeel jërul ñàkk bànneex jërul gàcce nee ñu da ko daa tëj ay waxtaanam sëriñ bi nee na li mu wutale adduna ak alaxira mooy adduna daraja joo mën a am téewul ku la bëgg gis gis la alaxira nag ñi bokkoon liñ daa def rek ñoo fay gisante sëriñ bi nee na ci li wutale adduna ak alaxira dana gis koo xam ne fii ci adduna day tabax ba teg beneen ca kaw te amul mbaarum ñax ci na gis koo xam ne fa mu dëkk ay jënax ak mbóot ñoo ko fay sonal te ay njëndéem mat na ci àjjana Sëriñ Tuubaa nee na saa su ngeen demee ba melaw àdduna bëgg leen a ci lu dul yàlla akub yonanteem gaaw leen ci lu gaaw dellu ci yàlla akub yonanteem Sëriñ Tuubaa daa <coughs> daana ay waxtaanam saabiqu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ardu uiddat للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سرين توبا اك القران امناكو مسا انديل سرين سرين بي اب كامل فك سونو نك لول سرين بي نكو فكامل بو واونا لول واي ففريقا كذبتم جي جي سوره البقره ترك نفاتي صدا سرين بي امناكو تي امنا غنه غو مسا نيو نكو داني ماي دور mu ne ko daa mel ni feeñul ci yaram wi de mu ne ko man daal dañ may dóor mu ne ko foo toll mu ne ko wa maa ubari'u nafsiya inna nafsa la amaaratun bi sooy yor na lool sëriñ bi mas am gone gu ñëw ci moom dayoo fa muy jànge sëriñ bi laaj ko foo toll mu ne ko habasa wa tawalla sëriñ bi bi ci géej gi dafa laaj sëriñ Basiru foo toll mu ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina mu teg loo ci ne liggéey bi mu teg loo ci ne liggéey bi nangu na sëriñ Massamba Diop Sam mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko yow ma yi ci alquran dama tiital lool ndax ku ci ndax gu ci ne la cay topp day raglu lool sëriñ bi ne ko ubbil bi ba xam yow ma gooy yem mu ubbi yem ci yow ma nadoo kullu unaasin bi imaamihim su ko defee li ko sëriñ bi tontuwaat nag damaa defee leer daa defee leer ci man gi ma ko sëriñ Saliou di nett bi waaye xam naa lu koy dégloo ci bis boobu la sëriñ Tuuba xaada lahu llahu maxtaar loo nee na kuy tàggoog kenn jàng lii alhamdulillahi allati sadaqana waxdahu wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati aytu nasaaw fa nicma ajru alcaamilin wa tara almalaikata caafina min cawli alcarshi yusabbicuuna bixamdi rabbihim wa qudiya baynahum bilxaq wa qiila alhamdulillahi rabbil caalamiin da ngay di sawaat ak moom ci adduna ak ci àjjana sëriñ bi mas naa dénk mas naa dégg kuy jàng alam tara anal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah mu ne ko ni'matillah xam nga kuñ ci jublu mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko mooy man yor na sëriñ bi mas naa laaj ay boroomi xam-xam ne leen inna allaha la yaxfiru ni ma doon bëgg ni ma doon wax ngi nii kat inna allaha la yaxfiru an yusraka bihi wa yaxfiru maa doona dalika liman yashaa luñ ci jublu ñu ne ko xanaa dane dana dana jéggale ku ko neex bàkkaar yépp ba mu des bokkaale sëñ sëñ bi ne déedéet ndax moo ne inna allaha yaxfiru sunu wa jamihu liñ ci jublu mooy bàkkaar bu ne boo ko tuubee ak boo ko tuubul dama la ko jéggal ba mu des bokkaale bokkaale tuub rek koy xar tuub rek moo koy xar am na naar bu mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko waskur fil kitaabi ismail sëriñ bi ne ko salika waadu xayru maktubin fekk booba daa am lu ko sëriñ bi dénkoon ma di ko ko fàttali ci saadiqal wa'di gi topp ci loolu sëriñ jëmb si itam naa ñëw ci sëriñ bi euh, di ko ñaan ak kaamil mu wan ko kaamilu loxo ak bu moon ne ko jël ci dem ki ma ko nett nag nee na xamul ban la ci jël ba mu jëlee benn sëriñ bi ne ko demal bind ko yët ma ba mu bindee xaaj bu njëkk ba ñëw wan ko sëriñ bi mu ubbi ko yem ci wa in taajab fa ajabun xawluhumu loolu mooy gàttalu ko sàmmi Sëriñ Tuubaa xaadalahoo lahu maxtaara lahoo nee na sama ñett mooy njëkk sama cat mooy ñàkk a nekk Tuubaa di jàng alquran am na naar bu mos a wax sëriñ bi inna haula yuhibbuna alxaajilata di ko junj ñu ñëw ci moom ngir luñ am mu ne ko man kaana yuridu al aajilata ajalnaa fiha sëriñ bi am na naar bu ko mas a wax lakk ko fi saqara di ko junj ay taalibe yoo xam ne dañ doon liggéey ba julli ji wuñ sëriñ bi ne ko fa waylun lil musallina di ko xamal ne julli taxut a mucc sëriñ bi mas naa laaj suuratul mulki ñaata laaye la ñu ne ko fanweer mu ne laaye wu ci ne am na fanweeri maanaam sëriñ bi mas naa dégg ñu naa sëriñ njaar siise daa man alquran lool te rafet na ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko nit ñi de dañu ne man nga alquran mu ne ko ñi ngi koy wax de sëriñ bi ne ko taril na suratul baqara ak suratu ali imran ak suratu nisaa ak suratu maida muy tari sëriñ bi di ko déglu ba mu mu ne ko wax nañ dëgg waaye alquran wal xadis wa manafiu daareeni lii maanaam alquran maanaam maa moom alquran ak hadis ak njëriñul àdduna ak alaxira sëriñ njaar daal di jéblu sëriñ bi ne ko demal ne ko bindal na ab kaamil ba ko bindee ba indi ko sëriñ bi laaj ko luñ la daa jox ci kaamil mu ne ko ñetti dërëm ñetti dërëm yi nguur sëriñ bi laaj ko fa nga nekk ca Kajoor ku la fa gën a jege ci taaliba yi mu ne ko sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ bi bind ay arab jox ko ne ko boo demee nee ko mu màggal kaamil bi ba sëriñ Ndiass ñëwee ci sëriñ Masamba Diop jox ko bindum sëriñ bi mu yër ko ba noppi laaj ko lim la daa jox ci kaamil mu ne ko ñetti dërëm yi nguur sëriñ Masamba jox ko ñetti téeméer ñetti téeméer dërëmi ngurdu sëriñ Jaase nar koo jox kaamil bi mu ne ko jëru ko araf yi sëriñ bi jënd rek doy na sëriñ bi mas naa laaj mag ña xadiisu xadiis bi ñu ne niyatul mu'minu ablaqu min amali yi liñ ci jublu ñu ne ko xanaa mooy yéene jullit moo gën a jot jëfam mu ne déedéet liñ ci jublu mooy yéene jullit <clears throat> jum mënta jëf moo gën a jot jëfam ji àndul ak sëriñ bi mas naa am kum doon ñaanal kooko di wax ci xelam bu ma bu ma xamoon li sëriñ bi di bu ma sëriñ bi waxoon li muy tari ba ma koy ñaane sëriñ bi ne ko suratul fatiha suratul xadri ak ayatul kursi koy tàggool jàng ko bu ngi bu seenu dund jeexut da ngeen gisawaat ci àdduna bu jeexee da ngeen gisawaat ci àjjana waxi sëriñ bi ci jàng alquran jamonoy sëriñ Touba ku masaana ñëw njaareem fajar day mel ne ay mbott ñooy fat ngir kàddu yi ñuy jàng alquran ak xasida kenn du tal kenn bu guddee ñu yëkkati lii sëriñ Saalix moo ma ko wax sëriñ bi nee na juróom benni isib ku ko saxal dara luy lore ci diggante asamaan ak suuf du la mën a lor loolu mooy gàttalum ñettali bi sëriñ bi daana digle fukki gisit bis bu am na ñoo xam ne ba mu leen koy digal sëriñu it bi nga xam ne dañ cay yendu ba mujj ci lañ te loolu lu tuuti la ci ay jagleen sëriñ bi nee na ñaar fukki isit ku ko saxal doo manqué njël benn bis njël mooy dépense am na jàngalekat bu doon dóor ay goneem gone yi ñëw wax ko sëriñ bi mu tere ko ko mu bàyyi ko ba mujj gone dañ koo ñemee bay war ci kam waaye teewut ñu bari mokkal ci ñoom sëriñ bi nee na gaaw a mokkal alxuraan ak fonk kilifa da koo fekk ci mbàkke waaye defu ko ci sëriñ bi nee na am doom man koo taxaw ba mokkal alquran te defoo ko kaw suuf si amul lu ko fi jar daal di dóor loxo suuf si <coughs> sëriñ bi nee na kum ku ko toogal ku ma toogal tuuba di ma jàngaleel alquran loo bëgg mu fekk si la ku ko deful mel ne naari gànnaar yi ñu bëgg dañ ko uti wér na sëriñ bi nee na ni ma gëne ñi mokkal alquran ni la ñi mokkal alquran gëne ko mokkul ku dul man <coughs> fexi serigne bi ci mokkal alquran sëriñ bi neena ñet ñi ñoo ñuroo mbot waliyu kamil, ku mokkal alquran deug waxteef dëgg ndax waliyu yu man mën nay waxtaan ak yow teewul mu nekk fenen di def lenen ku mokkal alquran deug itam man nay waxtaan ak yow di tari wax ci dëgg moom noonu ma man man nay waxtaan ak yow di def leneen moom itam man nag jot naa ne di tàmbalee ndax wàllu yu kaamil sëriñ bi waxu ko ku doon nekk li rek moo doon teqale wallahu taala ahlamu sëriñ bi nee na ku mokkal alquran seetu seetutu ci dara ndax muñ lewet lay boole ak lu bari jikko yu baax yi doog a mokkal Sëriñ Tuubaa bi nekkee njaareem te tubaab yi may ko ñeent fukk rekk féete ca kër ga sëriñ bi dafa waxoon ñu mokkal alxuraan rek lay doon sëriñ bi nee na alxuraan ñam wuñ fo fonk la te du ko def fu dul ci ndab lu mu fonk sëriñ Tuubaa nee na ku ma liggéeyal dafa fàtte alxuraan duñ la yor ci bàmmeel te mokkaloo alxuraan waxi sëriñ bi ci firi alxuraan sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na dëkkub yëfi la ko tax a mooy firi gën cay firi alxuraan Sëriñ Tuubaa nee na alxuraan bu leen ko firi bu leen ko firulu te fu ngeen fekkee jataay buñ koy firee bu ngeen ko mënee wute moo gën am na kum yónni woon ne ko feek ngay ñëw bu fi fekk fu ñuy firee alxuraan bu fi naan soo mbaanik bu fi lekk xaalisu kart ak gannaaw bu lii jàllee sëriñ bi nee fekk fu ñuy firee jar na sol daldi weñ di daw ba mu yàqu waxi sëriñ bi te xasiida yi sëriñ Tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo nee nañu masu bu masaa wax sama téere ba nooru daare ni la ci jublu bu nee téere ba muy fulkul mafhoon wala muqaddimatul xidma ci yenn nett lay xasida muqaddimatul amdah sëriñ bi nooru ko woon a génne waaye dafa am lu doon bindloo sëriñ Moussa Alima wanaale ko ko gaay bi ne ko <coughs> moom nag dafa war sa génn waaye téye ko xool ko feek ngoon ba bu ngoon jotee mu ne ba ngoon jotee ba mu ko indee sëriñ bi laaj ko lu mu ci jot a mokkal mu ne ko fukki bunt ak ñett mu ne ko kon de faat na wér na lool lii mooy gàtt lu nekk li bi bëri na lool nag ay wuute ci nekk li ci nekk li bi sëriñ bi nee na mawaahibu naafi fu ñu koy yàqe kenn du fa yàqoo mas nañuy jàng barsam ji sëriñ bi génn ne jës bu mawaahibu muqaddimaat bi maaxin basirin doo nañ sëkk am na ku ku mas di jàng jaalibatul maraaxib ci buntu sëriñ bi fukki yoon ak ñaar ba mu àggalee sëriñ bi génn ne ko yow jàmbaar nga de mu ne mes ba tey jii kenn xamul fu ne sëriñ bi nee na xasiid ak min lawxin mahfuus ku ko mokkal mooy doon soton ci munkar ak nakiir sëriñ bi nee na xasiid ak jaawartu ku ko mokkal duñ la laaj ci bàmmeel sëriñ bi nee na jës bu mawaahi bu muqaddimaat ñooy ay fas yi nga xam ne ku leen war te wàccoo leen danañ la cëppeel ci àjjana sëriñ bi nee na xasida yi bu doonoon am picc ña koy jàngkat yi ñooy laaf yi déglukat yi ñooy dunq yi sëriñ bi daana warlul ku mokkal bismillahi ci nii aw fas ak ñaar fukk juróom ñett ak àjjana sëriñ bi nee na yaafar bu mësta jaamu yàlla bu faatoo nga bëggal ko àjjana jàngal ko muqaddimatul amdah ba ca yubashiruka albaaxi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati sha'na yi jërul sax ngay àggale sëriñ bi nee leen di defal duma ko def ci alquran du ma ko ci du ma ko def ci wérdu ci sama xasida yi laa koy def sëriñ bi nee na bis taalibe yi ma indil xasida gam yor te bu kenn indi xasida gum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 nooru daaree ni ndax xam ngeen lu muy firi ñu ne ko xanaa leer adduna ak alaxira la ci jublu sëñ bi nee ndax adduna du kër li ma ci jublu mooy leer gi lay tee tàbbi sawara di la xëcc ba dugal la ajjana ndax sawara ak ajjana rek ñooy ay kër sëriñ bi nee na yowmal ku ma mën a ku mën a yor raa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ jàngee wenn way ci muxaddimatul am daax da nga ko wacc daw sëriñ bi nee na li ma tax bàyyi bind saafara mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa miin jëmale gi may jëmale sama xalima ci moom ba bu ma jëlee sama xalima mu ree ma daal di bàyyi la ma naroon a bind far jëme ko ci moom.